sama Samagal TV mbokk internet ñu ngi leen nuyu di ziar di leen baal di wax di ñu ngi ci euh, Saradam 2023 tey ma taxaw ci box boo xam ni Sopp

xam nga sectoriel yi moom jëloon nga ñu. Mhm. ñu ne la Sarene moom dinañ fël feneen. parce que sectoriel li ñu fi andi àlli li andi fi daanaka bokkuñu dara dara. dara dara parce que foofu ñu ngi fi àndoon Kérésène ak njabootam. yi nga xamante ne ñoo niroo moom style. fi ñu fi andi Ndoukoumane ak njabootam. ak benn jabaram. parce que andi neen trois doomam. andi trois doomu Ndoukoumane. trois doomu jigéen. Mhm. Euh, ak moom ak benn bu rafet ak jabaram. macha euh, moom mooy kan déjà moom mooy kan ak kañ la ñëw ci yéen. waaw euh, Ndoukoumane mooy le choix du nekk doom si oncle Ben oncle Ben kenn du ko présenté élevage bi nekk doom si excellence excellence nekk doomu Forman mais yaay Ndoukoumane nekk doomu Assane surtout Assane 2 doomu waaw mu defoon premier sortie am fii pense que foofu aussi jëloon nga ñu deuxième sortie mu nekk Tëngéej jël meilleure performance LCS. defoon hauteur 108 point 5 jëloon cinquième place bi nag mooy troisième sortem si foire fii nga xam te ne mooy Saladam le grand rendez-vous des champions. fan la fan si catégorie mal espoir. tey euh, mais ma jaaxal euh, nu ko maal moo dafa dox ci diggante bi lan moo indi loolu. waaw loolu capacité génétique bi moo moo exprimé wu rek. Ah. parce que xam moom dañuy ne xaar. parce que tey jii nu ko meloon na fi noo xamante ne ñu bëri. tolof tolof yi ma amoon yaakaaroon ne yaakaaroon ne dem fenn mais comme xar soo ko yoree rek gëm ko nga fu mu jëm ëllëg nu mu mel nag du la bett parce que éleveur ñu bëri ne woon ne ne du commande du nekk xar bi njool wala du nekk xar boo xamante ne dina neex xool mais vraiment tey jii nii tegge na tuuma sur les deux plans mi côté mensuration après production parce que képp si foire bi soo gisee da ngay jàpp war na mën a dugg si biir compétir mais loolu ma jaax parce que euh, mais bett boobu lan moo koy ne mooy tolof ko sax. waaw tolof tolof yi ak gëm gi ñu ko gëm xam suñu valeur u xar. di ka teg loxo a chaque fois su su ko dara dalee ñu xam ne ne vraiment. ndogalu yàlla la. aussi ñoo xam ne ne vraiment ëllëg am na na fu mu jëm daal te aussi li mu wàccee kër ga képp ku ñëw si Fallou apprécier nga ko te façon prix bu nekk ñu ngi koy dégg depuis ñu commencé yar ba léegi hmm. prix yi dégg si doomu du ko ba suñu ko dégg si xarit parce que tamit li ko boole la doom tey du ko maan waaw tey jii nii tëb na fa diverses femelles parce que tey jii nii soo ñëwee fekk bergerie boo xamante ni vice champion du Sénégal 2020 muy ñëmbat waaw fekk fa femelle lu mel ni Sonna Dieye nekk ndaanaanu femelle foire Touba bi passé mu jëloon quatrième place si xale bu ndaw si deux portées ñoo fekk femelle lu mel ni Drianke waaw fekk fa tant d'autres femelles yi nga xamante ne ñoo ma nekkoon suñu base mooy doomu Kabiri ah nekk doomu Carvajal en même temps ak yenn femelles yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon vieille marmite donc te jii nii bu ñëwee foofu fekk fa base bi ak famille yi ñuy jotoon recruter boole ka ñoom vraiment def na résultat yi extraordinaire te vraiment da nga gis constance bi nga xamante ne mi ngi koy def si doom parce que n'importe quelle famille fekk na ko fa façon famille nga gis ni muy imposé si doom parce que ñoom ñu pëndiroo en tout cas tey léegi waaw mooy ñetti yi mooy ñett yi takk collier yu rouge ñetti takku lay rouge waaw ñu ay doomam lañ ñu ay doomam mooy benn technique bi ak ñaari corne yi voilà ay doomam lañ añel bu ñuul bi añel bu ñuul bi doomu chrétien bi kooku mooy rakajuna parce que tey jii nii sax c'était pas l'objectif mu ñëw si foire bi mais tey jii nii bi ñu waxtaanee suñu biir am melokaanam ñu ne pourquoi pas ñu andiwaale ko parce que tey jii nii soo xoolee est dafa niroo est la ay xar yi nii waaw te vraiment su su nekkee si biir tëng yi kabir te li si gën yaay ñoo ko juddule juddule maamam te loolu suñu fierté la parce que tey jii ni moo nekk suñu quatrième génération liggéey parce que moom mi ngi nekk doom si Kabir Kabir mi ngi nekkoon kër ga yaa doomu Kabir boobu yaayam nekk doomu Karbaxal doomu Karbaxal boobu mi ngi nekkoon kër ga doomu Karbaxal boobu yaay ji nekk doomu Babs nekkoon si famille yi ma doon expliqué sànq si yi recruté woon grande famille bu rafet bii nag laa bëgg ñëw kii kan la waaw kooku mooy Dirianke. ok vraiment moo nekk mën naa ne bokk na si famille yi gën a gars yi si parce que éleveur dañuy faral di wax naan famille yu rëy yi ñooy jur champion yi. parce que tey jii nii mal bi surtout si Sénégal muy batañee famille kenn ëpp ko si woon mal bi gën a gudd si Sénégal muy Mokho Seye nga xam te ne moo moo détenir record LCS mooy première dame ko woon rëy te tey jii nii première mooy maamu xar bii mooy Diriang te tey jii nii képp koo gis dina am la frappé si moom te vraiment li mu a produire dal na suñu xel. fu mu jógee ko jëlee woon si Séré Diakhaté. macha allah waaw Séré Diakhaté mi ngi ko jëlee woon si copain am mën naa ne meilleur ami bi ñuy wax Abdoulaye Mbengue. macha allah mu bu rafet boo xamante ne ñu ngi koy waaw parce que benn suñu benn grand bi ñuy wax Laye moo moom mooyoon tëb Abdoulaye Mbengue mu tuddule ko xar bi maa ngi ko mu jox ko Séré ñu dem foofu bëgg ko Séré yombalal ñu ko waaw boo nee nag junni ay seex. ah, ah. ah góor yi bu góoraa bu jigéen yu ko raaw sax. loolu jot na ah, ma ñëwaat nag benn fopp xaadim. waaw dafa lool parce que benn bi sax. Uh-huh. bu góor bi fi mu ne nii ñu waxtaan si pour opté ko parce que yaa ji ni mu mel kii moom bu te bu jigéen aussi vraiment année yii nii mënuñu ko. mais mais xam nga. ñaata mois ñu seex yooyu. noonu ñu ngi si ñu ngi si huit mois. huit mois ñu si huit mois waaw. document 27 mois. 2 ans 3 mois mhm. ans. 3 ans. prouvé élevage la chaque instant chaque mois avant euh, jeune duñu quoi. la patience bi mu commencé sotti la ñu gars yi ñëw double lañ ñu triple ñu prix bi ñu ko jëndee woon ñu bañ parce que boobu xam nañ vraiment la mu la mooy ay capacité ala la capable ala la war a mën a dem juri ji te tey vraiment képp ku gis ay doomam xam na ne du maalu caaxaan mhm. euh, euh, Chérif kontaan naa assi ah, ñoo la gën a kontaan man ñuy bëggee sama xaalis uh-huh. damay kontaan parce que li may gën a nekk seen exposition mooy la beauté chaque fois damay gis beauté bi ci biir assi ah, élevage loolu foofu la toll uh-huh. parce que nii gi nga piste bu mag bi nekk fële si lii bi xarit compétiteur moo tax ñu jóg mais tey jii nii soo gisee exposition bi di nga xam ne ñun on travaille les parce que élevage foofu la toll mais taxul yaa ngi gis esthétique bi bi ngay ku gis xar yi nga xam ne nekkuñu ay xar yu ñaw mais aussi ñàkkuñu mensuration donc les deux sont que tey jii nii ossager bi mu yor ak kees bi mu yor jafe na si jamono ji ñi famille yi ñu yi ñuy liggéeyee quoi parce que gars yi ñu ngi opté les mensurations mais en même temps ñi ngi ñi ngi fàtte doole ak kees. macha allah waaw te famille nii ñoo jur champion yi. kontaan naa ko jaajëf grand bi. jox ma numéro Sopoxaane bi. bergerie Sopoxaane mi ngi si Cambérène Casba si ginnaaw parc Soble bi si juste parc Soble bi numéro bi nekk 77 965 32 32 wala 76 190 90 42 muy numéro Tigo bi. Mhm. Chérif euh, kontaan naa. jaajëf Cissé kontaan neex na. waaw neex na ba noppi jaajëf Cissé.